alhamdulillahi wa salla abada xalal lasi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawi nawali alwali saddid lisaani nuwir janaani safi amaani wasid baraai asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi bokki taalibe yi ni déglu ci jataay bi ak li ko génn gannaaw bi nu santee borom bi tabaraka wa taala julli ca yonantaan ba muhammad sallallahu alayhi wa noo ngi santaat bu baax sëriñ tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba di sant sëriñ ma Masamba di sant sëriñ Mahmoudan Jobbe mi xam ne mooy boroom ëtt bii te tax nu fee daje di ñaan ngërëmul borom bi ak xéewalam muy wéy di dottiku ci kawam li feek borom baa ngi doon borom bi di siyaara bu baax sunu kilifa yi nga xam ne ñoo jiite jataay bii di njabootuk sëriñ Mahmoudan di njabootuk sëriñ Masamba ci njiital Cheikh Mahamadul Fadil moom sëriñ Mahmoudan Jobbe di siyaara sëriñ Cheikh mi xam ne mooy jawri ni kër gi jiite liggéey bi jiite njaboot gi di jawri ni sëriñ Mahmoudan ñaan borom bi mu yàggal taxawaayam te may ko ndam ci liggéey bi te moom noo ngi sant ci jataay bii nu bokk teew ngir di ci fàttaliku koo xam ne desu ko fàtte mukk muy sëriñ mahmudan waaye fàttaliku gi dañu koy def ngir nafar dundam fàttaliku jikkoom meloom taxawaayam njàmbaaram diggam ak boroomam diggam ak sallallahu alayhi wa diggam ak sëriñ bi diggam ak yoon wi muy lu yaatu bàyyu yaatu yoo xam ne benn ci yooyu bu ca nekk ku ko jëloon taxaw ca def ko muy waxtaanu sëriñ Mahmouda nag loola danga ca mën a indi loo xam ne dana doy sëkk ci jataay bii ngir ne mat yombul borom bi rekk a ko def waande sëriñ Mahmoudan bu doon ne doomu aadama dana mat ñu ne borom bi boole na ko ca ñam ko wërsëgale ndax mboolem melo yi nii nawe nit ku baax ku mën a doon boo ko seetee ci moom gis ko ci damay faral di wax ne sëriñ mahmudan jaamu borom bi la boo xam ne saxoon na ci di ko jaamu soppeb yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne diirub dundam ci xeñtu sunnaam ak di ko dund ci la tënku waaye taalibab sëñ Tuubaa la boo xam ne ni sëñ Tuubaa bëgg kon ak xogam mel ni yàlla dimbale na ko melo na noonu kon nag yàlla na nu ko yàlla fayal te taas nu ci barkeem sëñ Aada sëriñ Mahmoudan ni nga ko waxee ci nu xamle ko waxin la ndax bu ñu nee diw ku ko xamul ku ne sañ na ne kooku ko mu ñu ne ko diwa doomi diw ak diw mu ne mooy kan ñu ne moo moo waxtu sàngam la fi ñëwoon fii la nekkoon lii la doon def ci ku ko xam buñ ko xamee it ñu fa ñu sañ koo laaj ngir nafaraat sëriñ Mahmoudan Koumou mën naa ne kenn la koo xam ni borom bi moo ko fi indi jaarale ko ci ay jaaruwaay yoo xam ne tànneef lañu woon njëkk muy ñëw mën ne la doom sëriñ Mahmoudan la tudd di doomi sëriñ ma Masamba nga ne ma sëñ Masamba mooy kan mën ne la mook sëñ Tuubaa ñoo bokk bàyyi ku doon wutuk bokk bañ na la diw ak sëñ Tuubaa bokk man nga faa yem ndax koo gis ci àdduna mu xam dara foo ko dàq jëm ci sëñ bi rek la bëgg a wuti sëriñ Masamba mi baayam nag mook sëñ Tuubaa ñoo bokk baay sëriñ Mor Anta Sali mooy seen waajur sëñ Mor Anta Sali doomi Mam Balla Aysa doomi Mam Mahara sëriñ Mahmudan doomi sëriñ Masamba doomi soxna isa nga ne ma soxna isa mooy kan mën na la mooy doomi Mor Xuja Kumba di kook istuwaaru réew mi du ko fàtte moo taalif téere bi ñuy wax muxaddamatul kofi Mor Xuja Kumba di doomi Masamba Anta Ceebu doomi Madun bu Buyo doomi Moxtar Lo waaye sëriñ mahmudan doomi soxna jobbe moom masàmmante moom moodu amina xumma ci tënk ay waajuram ñooñu lañu sëñ masambaay baayam soxna aminta jóob ñu gën koo miin ci soxna jobbe mooy waajuram wu jigéen yàlla dogalit bi muy gane jamono mu ganee jamono ci pàkk bu tedd bii ñu nekk di Tuuba léeg-léegaa ñu tudd njaareem waaye njuumte la ci taarix sëriñ première le premier janvier 1912 la gane jamono te sëñ Tuuba janvier la dem njaareem te njaareem moo yóbbu nit ñi moo yóbbu moo moo yóbbu sëñ Tuuba moo yóbbu nit ñi njaareem gannaaw ba fa demee sëñ Gànna nee na la 14 janvier sëñ Mahmoudan dadaa wax ne 1912 day ñaareelu fan ba ku ca judd rek maa la mag ndaxte bis bu njëkk ba ñëw fii ci Touba la ganee jamono bim ganee jamono sëriñ Masamba yëgal ko ku baax ka war ko wax ko ne gan am na sëriñ bi sàkkal ko aw tur tànnal ko turu muhammadul mahmud bisum nganam bàyyi ma ko tudd sëñ bee tànnu turam sëñ masamba ko tudd la première janvier tolloog fukki fan ak benn ci weeru muharram xaamala sa si bi ko sëñ bi tànnalee turam woowu sëriñ masamba baayam tudd ko ci tur woowu ko sëñ bi jox muy muhammadul mahmud ñu ne nag sëriñ bi moo waxoon na nañu koy wooye mahmudan waaye bim bim ganee sëriñ bi dem njaareem as gannaaw ba njaboot gi fekki ko sëriñ Masamba dem soxna jobbe dem soxna jobbe bim demee njaareem ci biir kër gu mag la ne ci biir kër sëñ bi nekk ak i bokkam soxna Aminta jobbee nga fa sëriñ bu mag bee ko yoroon moog mooma bokk bàyyi soxna Fat Jóoba nga fa sëriñ bu mag bee ko yoroon moog mooma bokk bàyyi ñu bokk fa nekk sëriñ Mahmadan yaroo ci biir keppaarug sëñ Tuuba teele miin sëñ bi lool teele miin ëttam ya lool teele miin néegam ya lool bu ma ko ñame woon nelal li gone di wax jàng dox ak yooyu ci keppaaruk sëriñ bi la ko defe moo tax dafa gimmi xam sëñ teel a xam gi mu xam sëriñ bi it moo tax mu mu gënoon a xam sëñ bi ci sëñ Masamba mu gënoon a xam sëñ bi ci sëñ Masamba ba defe na sax sëñ Tuubaay bàyyi boppam mas nañ ko ciy tooñ di ko wax ne sëñ Tuubaa sa baay sëñ Masamba la jur mu mel na lu ko naqare sëñ bi ne bu leen ko ko waxati maay bàyyam mu yari ci lool di farakante sëñ bi ciy néegam nettali na ba tàyyi moom sëriñ Mahmoudan wax ne nekk naa ci néegu sëriñ bi ba tàyyi for ba nelaw ca néeg ba yeewu yeewoo ci kaw lal ma yëg na sëñ bee ma ca teg waaye ba may tëdd tëdduma cib la ci foofu la yaroo ci njëlbeenam ba mata dal daal bi matee dal itam mu am tawféex yi sëñ Tuubaa dalal ko jël àlliwa bind ca sa noqe ko falaa tansa bind ca bismillaahi rahmaani rahim daal ko koy sax ñaanal ko jox ndigal waajuram sëriñ Masamba ne ko na ko yut najaayam sàmba ayib jóob sàmba ayib ak soxna jobbe mi jur sëriñ mahmudan ñoo bokk lépp soxna jobbe sàmba ayib sëriñ mayib ñett ñi ñoo bokk ndey ak baay sàmba ayib mooy bàyyi alxaaji sëriñ jóob mi ci tiib sëñ mayib mooy waajuru soxna aminta mayib waajuru sëriñ abdul ahad mii toog sanba yi bi yor ko fii ci ngëbu di ko jàngal alquran yàlla wërsëgale ko la daloon baayam dal muy teel a mokkal ngir am wat am xelu mën a wat dañuy wax ne sëriñ Masamba bi muy nekk ndaam njàng ma dafa gaaw bañ di ko yéem sëñ maamoor say ne ma sëñ Abdou Khadir nee na ko sëñ ndaam nee na ko lañ ko doon yéem yéem njàng ma mënoon na gën a gaaw waaye man maa ko doon dawal cet moo tax ma yaaxal njàng ma loolu daloon bàyyam moo ko dal moom deful ci loxoy sàmba ayib ñeenti at yu mat yàlla wërsëgale ko mu mokkal téere bi waxuma la mokkal ko mu am tawféexi bind ko bam ko mokkalee bind sàmba ayib waajal ko ànd ak moom andi ko njëreem jébbal ko sëriñ ma Masamba sëriñ Masamba ànd ak ñoom sëriñ Mahmoudan ak Sanba Ayib yóbbu leen ci sëñ Tuuba jébbal ko kaamilub sëriñ Mahmoudan sëriñ Mahmoudan ubbi sëriñ Tuuba nangu téereem téere ba ca loxoom yu tedd yi ubbi ko mbind ma xeetu ci moom lool ba mel ne bu doon ku yéemu mën a la mu yéem ko ba ne sëriñ Masamba Masamba ngóor sii moo bind lii danaay faral di wax baat boobu nag bu ma ko waxee ne nañu ma jéggal ci waxin wi waaye moo ko daa waxale boppam noonu sëriñ Mahmadan moo ne sëriñ bi moo ne sëriñ Masamba ngóor sii moo bind lii sëriñ Masamba ne ko waaw sëriñ bi bi mu ubbee kaamil bi ci bopp laxaraaf la yem mu daal di ko teste ne ko mahmadan taril xam nga loolu beneen tawféex la ci moom ku am tawféex yi jàngi ñëw bind kaamil jox ko sañ Tuubaa maanaam am nga tawféex yi sëñ bi dalal la nga dem jàngi yàlla dimbale la nga am tawféex yi mokkal am tawféex yi bind ko amaat tawféex yi jox ko sëñ Tuubaa yemoo ca sëñ bi testale na la taril sëñ tubaa kum tariloo bu la yàlla dimbalewul boo mokkaloon sax fàtte la nga jàngoon jombul boobu at yi moo tax waaye bu doon ca mag ñi du bu doon na at yi ëpp na fa du nangoo xam waaye ginnaaw sëñ bee ko ne taril nee na booba alquran fépp ak fatiha ci man li ma sëñ bi ne taril nee ma jàpp ne damay tari saar wi yépp ma tàmmuli bismillahi rahmani rahim alif lam mim shaat kitaabun di woy wal wasnu yawma sin alxaqu fa man shaqulat mawaasinuhu fa ulaayka humul muflihun sëñ bi ne ko taxawal nee na ma taxaw nee na mu ubaat téere ba ubbi dal ci boppu sajda ne ma taril na mu ne bismillahi rahmani rahim alif lam kitaab laa rayba fihi min rabbil alamin ba mu agsee ci falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min quratin ahyunin jasaan bi maa kaanu yafaluun sëriñ bi ne ko taxawal mu taxaw sëriñ bi ne sëriñ Masamba Masamba mu ne ko mbakk mu ne ko kii kat na ngeen ko suturaal ndax lii lu teel la ci moom daan sàmba ayib mu ne mbakk mu ne ko yow kat yaa gën diw cib jarbaat yaa diw cib jarbaat daal na ko mahmudan mu ne mbàkk mu ne ko na nga yëg ne sant naa la mahmudan mu ne mbàkk mu ne ko gërëm naa la may moo tax may wax na sëñ mahmudan bi muy dégg jaajëfi sëñ Tuubaa gërëm naa la fukki atam bu matee ca la yem mahmudan mu ne mbàkk mu ne ko gërëm naa la ndax nii nga def rekk laa bëgg ku ko def mahmudan mu ne Mbàkke mu ne ko na nga xam ne bis naka tey may sa baay nii nga def nag képp ku ko def ma doon baayam ku ko deful nag ak kumu njureel nga da koo wax waaye sequñu dara dal ne ko mahmudan mu ne ko Mbàkke mu ne ko na nga yëg ne danga nga seddu moo tax sëriñ Mahmadan daan wax ne baat baat bi tubaab di wax campagne noonu la ko daa waxe baat bi tubaab bi wax campagne de bu ma ko kenn defal ndax man sëñ bi noonu na ma danga nga seddu te kum ne da nga seddu danga nga seddu ba loolu weesoo mu daal diggal sëriñ Masamba nag ne ko na ko yot sëriñ Mbàkke Buso mu jàng fa xam-xam sëriñ Masamba yóbbu ko jox ko sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Mbàkke Buso taqoog moom jàngal ko lu bari ba cag mujjam ca at yu mujj yam mu bàyyi kook sëriñ Xasan Buso sëriñ Xasan mottalil ko gannaaw ba mu jóge fa ñëw sëriñ Masamba jël ko yóbbu ko njaamu jox ko sëriñ Mamar Sey foofa itam mu am fa ab diir doonoon nit kuñ fa bàyyi xel yàlla dogal na am naa fa ab diir gis naa fa ay mbind loxoom yoo xam ne ba tey yu yu xeetu la moom Serigne Mahmoudan sëñ Manaan won na ma ca yenn yu bari yoo xam ne mbindi loxoom ma foofa mu nekk fa sëriñ Abdou sëy di bàyyi sëñ Mbay sëy jóge foofa ñëw siyaar si sëriñ Masamba sëriñ Masamba ne ko ana Mahmoudan mu ne ko ma nga fa sëriñ Masamba ne ko nu def mu ne ko moo la gën kàddu gu gu xaw a diis waaye baay bu baay bu nekk bëgg naa dégg sa dooma la gën ak lu sa baay baax baax ku ne mën nañ ne la diwa la gën mu naqare la waaye sa doom jee la gën kenn du ko bañ sëriñ Masamba ne ko ma ne ana Mahmoudan sëñ Abdou Sey ne ko ma ne ma nga fa mu ne ko ma ne nu mu def mu ne ko ma ne moo la gën sëñ sëñ Masamba ne ko du ma ne ana Mahmoudan mu ne ko ma ne ma nga fa mu ne ko num def mu ne ko ma ne moo la gën sëñ Masamba ne bërit jóg ba ko fa dugg ci néegam génn yor mbàjji leen peñu suukar ak yamu àndal jox ko sëñ Abdou Seye ne li nga ma wax daf maa neex ndax man sëriñ Masamba sëñ bi daf maa xool ba yàgg mu ne ma Masamba ma ne ko Mbakke mu ne ma haakasa yaa nga ca yoon wa sëriñ bi nag ne ma yaa nga ca yoon wa ma am doom nga ne ma moo la gën loolu moo sedd sama xol moo tax ma di la ter ba yàlla dogalee mu jógee foofa ñibbisi nag daal di dellu si ci loxoy sëriñ Masamba sëriñ Masamba taqoog moom ab diir yoral ko boppam yaral ko boppam lam bëgg ca moom mu def ko ci dal koy sóobu nag ci yoonu liggéey xamal ko ne ko yoon wi moom amul dallu jàng ak liggéey jàng nga ba ñëw li des nag mooy liñ nekk soobul ci liggéey bi daldi koy yabal daarul karim mu ne fa am at nawet ba jeex am yu am sëriñ masamba tuxal ko delloosi ko ca déwén sa mu yóbbu ko nja boole kook sëriñ ibra gi sëriñ mahmadan nekk foofa di fa liggéey ba def fa ñetti at jógewaat fa foofu nag dañuy wax na dafa jóge nja dem diggiñ waaye am na lu fi dox sëriñ mahmadan bi mu jógee nja demul diggiñ dafa ñibbisi tuuba nekk ci biir kër gi moo ki goneem wut ay tool fii ci ñànk di fa bu bu waxtu liggéey jotee gone yi xëyee ci kër gi dem ca tool ya liggéey yi bu jant soo tokk saani suuf ñu wàññi ko ñibbisi ci kër gi loolu soxna Minta Mayib nee na ma def na ko ñetti xat nee na ma am na bis boo xam ne fii laa toggee laax moom soxna Minta di leen ko yóbbul ca don ca tool ya nee bi ma ñëwee ba jub leen yàlla dogal am lu ma fa këstalu la ma yan woon tuuru nee na ndeke fi muy tuuru ci tànki sëñ Mahmadan la nee na ma ma ma si geeg sama jaaxle nee na sëñ Mahmadan ne ma looy toog demal toog gi waat demal toog gi waat te booba la ñuy togg dugub lay doon nga war koo soq war koo defaraat war koo taalaat mu ne ma mu del ba loola amee mu am fa ñetti at la doog a dem diggiñ diggiñ ba mu fa demee mu fekk fa ay kilifa di ay bokk sëriñ xaadi ndaw sëriñ abdu sën mi nga xam ne ci këram la daloon euh, diggiñ googu ba mu demee mu nekk ci kër sëriñ abdu ndaw ba ca déwén sa mu doog a génn dem rëdd këram tudde kër ga daaru salaam dem ba ca kaw ya mu samp daara tudde daara ja bustaan donga ya ne ca daara ja moom mu ne ci këram ñuy jële li ñuy jëfandikoo ci kër gi di leen ko yot ca daara ja booba kër ga juróomi néeg néeg bu magu boppam bi ñaari néeg yu jigéen ne ak néegu wanag ak néeg boo xam ne ca lañuy denc néegu wanag bi mooy boo xam ne bu gan ñëwee na ca mu tudde kër ga Daaru Salaam tudde daara ja Bustoon googu lu gàtt-gàtt def na fa juróomi xat yu mat sëkk yàlla defal ko fa tawfiix fa la njëkk a gis fa la taawam Sëriñ Ahmadu Mbakke ganee jamono radiyallahu anhu diggiñ googee fa la sunu maam soxna ami ndaw mii àndeek moom cib liggéey muy waajuru sëriñ Cheikh ak sëriñ Fadilu mii mu nekk fa nag ba yàlla matal ab liggéeyam foofa mu jóge fa jëm Tuuba Mbella sëñ aada ma du ma guddal foofa foofu laay taxawande wax la ne sëriñ Mahmoudan mooy ku mës la am jot ci loxoy kilifa yi la gane jamono ñu def ca moom la ca war a jiitu yor ko ba dal ñu dalal ko jàngloo ko mu jàng ñëw ñu soog ko ci liggéey bi ba ni mu wàcceeb liggéey nag lañ ko sooboon génnu ca yal na nu ko yàlla fayal wasalaamualeykum wa rahmatullah